dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu week-end bi samedi ji ak dimanche tàng na jër ci réew mi bëri na ay bakkan yu rot bëri na ay musiba yoo xam ne maanaam am na ci réew mi am na koo xam ne ci kuréel gii di MFDC la bokkoon ay atam toll si ñeen fukki at juróom dañu ko fekk mu toog ñu laa di koy booma am na ab commerçant sénégalais bu nekk ca Gabon ay samba buy ñoo ko fekk ca boutique daal di koy rey ca Tiwaawan gis nañu fa ak ñaawteef goo xamante ni ñoo ngi ko fay wax ndax nee nañu am na koo xam ne ab borom kër la bu ray jabaram ray doomam daa di xaru ak buum la takk ci baatam daa di sandaamtalu jamono ji ubbi nañu si ab enquête am na ab camion boo xam ne fiir na benn xale bu góor ca Kaffrine mu ñàkk bakkanama am na benn waay boo xamante ni balu fete la jër joxar bi ko benn taximaan maanaam tuutee tee mu rey taximaan bi ca Pikine jamono ji taximaan bi ma ngi ci diggante dund ak dee waa ji bi mu fatalee taximaan bi balu fetal bi ci pare bi la dala yéen kaay gi nee na waa ji def ñaaw teef googu teg nañu ko loxo journal bi di réew mi quotidien moo xëy di ñu ko xamal yéen kaay gi de la tur bi na xëy yóbbuwaan ñu diiwaanu Tiwaawan nee na Cheikh Kane la ñu wax ne moo rey jabaram ak doomama yéene kaay gi di Libération nee na Cheikh Kane moomee nga xam ne moom la ñuy wax ne moo rey jabaram ak doomam mbir mi am na lu ci lëndëm ndax fekk nañu fa ab lettre boo xam ne maanaam dafa mel ne Cheikh Kane moo ko bind ak fan la tekk ba rey doomam ak jabaram doo ko xaru waaye nag nee nañu Cheikh moo moomee ay jàng la organisé woon amul lenn loo xam ne nemmeeku woon nañ ne moo ko metti police bi nag ñoom daal li nga xamante ni si lañ jot a liggéeyagun gisuñ ne Cheikh Kane moomee dafa xaru maanaam itam gisuñu ne dafa takk ak buum ci baat bi daal di sandaamtaloo yéen kaay gi du l'observateur bàyyi mbir moomee wax ci ministère yi nga xam ne jamono ji ay jafe-jafe bëri na fa loola maanaam ministère yi nga xam ne ñooy jayeex-jayeexe xam ne état d'urgence war na si ñoom ministère de la santé ministère de l'éducation ministère des transports ministère de l'énergie ministère de l'intérieur ministère de la justice ministère yi bëri na ay ñaxtu yoo xam ne ñoo ngi ko fay nemmeeku yéen kaay gi bi maanaam suba lay commencé waata impossible consensus noonee la pour ne maanaam ak juboo dina am ca wàlla waa yéen kaay gii di réew mi ko di ñu xëy fekk fa Maître El Hadji Diouf mi nga xam ne maanaam dafa corona woon ba wér daan nay wax ay dëggama nee na demul Touba benn yoon ndax woppi coronavirus ji maanaam nee na du màggale moom Maître El a Diouf nee na Touba bu ñu ko tëjoon ak Ndakaaru feebar bi nii nga xamante ni moom la lawee ci réew mi du ko lawee ci réew mi yéen kaay gi de la sa mu xëy di ñu xamal lan ñu woppi coronavirus ndeke jeexagul ci àdduna bi ndax kuréel gii de organisation mondiale de la ñoom xayma nañ ko si ñaari at yoo xamante ni jàpp nañ ne coronavirus bi fi jógeegun yéen a kaay gi di direct news dikk na ci financement yii nga xamante ni toll na ci cent milliards ñu war ko financé ndaw ñi ak jigéen ñi maanaam délégation l'entrepreneuriat rapide di DER journal bi nee na cent yi nga xamante ni moom la ñu war a ndaw ñi maanaam fan la dugg bëri na ay léexóor bëri na ay njaaxum bëri na ay tojaange yoo xam ne maanaam am na si Pape Amadou Sarr mi nga xam ne moom lañ ko dénk dafa lajj te jamono a ci guerre ci lu jëm ci mbirum ger journal bi nee na bu Sénégal dañu doon wax ne est-ce bu indépendante la maanaam bu moom boppam jamono ji nag la wax mooy justice bi est-ce que am na ak wegel est-ce que na ndax ay magistrat ñoo fi nekk di tuumalante ci lu jëm ci mbirum ger yéen a kaay gi di ñu fekk fa maître Ousmane Seye la mu xamle nee na justice bi si boppam bu ñu waxante dëgg maanaam moo amul kilifa l'observateur nee na premier président d'appel danañu ko a Yaaya Amadou Dia ak Ousmane Kane mi nga xam ne mooy premier président cour d'appel bu Kaolack yéen a kaay gi di sud ko di cee corruption bi nga xam ne ñoo ngi ko tudd ci magistrature bi tax na maître Malick Sall daan nay saisir inspection générale de l'administration de la justice yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy nag ci waa CEDEAO ñoom nag demoon nañu Mali daje ak Ibrahima Boubacar Keïta doon waxtaan ak moom ngir nañu andiwaat ko ci bopp réew Mali waaye nag Ibrahima Boubacar Keïta la mu leen xamal maanaam xalaatul junni xelam xalaatul muy delluwaat na dafay jiite réew mi di Mali xalaatu ko benn yoona te moom Ibrahima Boubacar Keïta daat nay nangu ci kanamu CEDEAO ne bëri na loo xamante ni daf koo daal di laj ci ma ngi wër am réew moo xam ne fa la bëgg daw làqatu ngir faju yéen a kaay gi di la turbine ñu fekk fa Omaro Sissoko Embalo njiitu réem Guinée Bissau nee na lu mandat yi ci Afrique loolee coup d'état la ñi nga xam ne ñooy militaires yi teg loxo ci réew Mali ñoom nag nee na ñu ñetti at la ñu bëgg a toog doog a joxe réew mi yéen a kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa docteur Babacar Diop la mu xamle nee na Sénégal coup d'état mën na fee bañ am waaye nag révolution populaire loolee moom bay boo ñu xaar ko ci réew mi maître El Hadj Diouf yàq na lu mel ne xamee kuréel gii de CEDEAO nee na ay tappalekat lañu ay naafiq lañu daan nay dànkaafu Macky Sall ci lu jëm ci ñetteelu mandat Dakar Times xëy na ci réew Mali gi nga xamante ni du ñu wax guléet ne coup d'état am na fa ndax 1968 ba léegi ñeenti coup d'état nemmeeku nañ ko Mali yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Mamadou Kassé mi nga xam ne moo jiite SICAP daan nay wax ne état bu jamono ji ma xalaat évaluer maanaam natt loi bi nga xam ne moo jëm ci wàllum wàññi bi nee na état bu Sénégal ma ngi ciy liggéey ngir nag location bi gën wàññi wax nañ ci cent mille logements yi muy projet boo xam ne état bu Sénégal moo ko teg ak lan la ci sikaab liggéey yéen kaay gii di exclusif mu ñu xamal lan ñu askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Mbambi Lora ñoom fipp nañu mer nañu ba maara détail yi seen maire bi di Njañ Jóob la ñu mere ndax dañoo jàpp ne dafay saax-saaxe li nga xam ne maanaam mooy seen suuf sa stade yéen kaa yi ak record mu ñu xamal lan ñu Bayern tas na yaakaaru Paris Saint-Germain ci Ligue des Champions bi nee na bii mooy juróom-benneelu yoon boo xam ne Bayern ma ngi teg loxo Ligue des mi mi quotidien mu xëy dañu xamalaan ñu Idrissa Gana Gueye ak Paris Saint-Germain am nañu mbetteel dëgg yéene kaay gi di sunu làmb mu ñu xamalal ñu am na benn promoteur boo xam ne ma ngi def ay lobby dafa bëgg a Père Ndiaye Gaston Mbengue yàq ko Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux yàq combat Boy Niang Tapha Tine ba pare tëgg Boy ñaa ak Balla Gaye 2 bii bi maanaam lii la bëgg